responsabilité donc euh, responsabilité nag moom dafa nekk loo xam ne boo ko xamee mën na nekk locomotive u li ñuy wax liberté maanaam tey bu doon ne ñaari wagon la benn bi nga euh, bopp saxaar gi xëcc li tax li ci topp topp ci mën nañ ko tuddee responsabilité ak liberté mais sëñ Maxtaar dafa wax wax ju am solo maanaam moom sa bopp hmm. moom sa bopp maanaam dafa am njëg ndax am na loo xamee ne maanaam kuñ takk teg la ci bërëb jóg fa du yomb mais bu fekkee ne ñëwaat naa ci li nga xam ne tey moom nga wax mooy presse bi ñoo ngi wax coupe coupe coupe du monde bi mais ñun de buñ ko waxee ak buñ ko waxul te bokk na li ma indi fii tey mooy dañoo nekk ci génn kuréel gu ñuy wax kat ñun tey fii ñuy wax ak ñu ci bari ñoo tal coupe du monde bi mais ñun taluñu ko. ndax dañoo am kenn ku bokk ci ñun muy Pape Alé ñu xëy xañ ko li ngay wax liberté maanaam teg ku ci bërëb ne sañta dem sañta dikk ne ko fa ràpp tëj bu loolu weesoo ñu dellu gannaaw ndax nag réew mi war nañoo mën a tëj. ndax nit danga ko yóbbu tëj ko mu nangu ne man dañ maa war a tëj waaye nit it da nga ko jaay doole fitnaal ko tëj ko mu leer na yow li nga def lépp ci jaay doole nga ko def Pape Alé nag bu ñu koy càmbar ni ñu ko jàppee jaay doole la ndax Pape Alé du mala dégg naa léegi bi kii di def revue de presse yi ne gaynde gi oustaz si ngi ree ne orange bi lekk na gaynde gi <laughs> muy lu doy waar orange bi lekk na gaynde gi mhm. Pape Alé day tasketu xibaar ñu xëy fekk ko fa muy defaree pono otoom jàpp ko yóbbu te jàpp naa ne li gënoon a rafet mooy woolu ko bu dee daa def ñu ne ko ñëwal wuy suñu heure sàngam ba mu a dem te jàpp naa ne du ko def ndax fi la dëkk nit ñi xam nañ ko ñaareel bi mooy ñu ñëw kidnappé ko yóbbu téye ko fa dégg naa sax kenn ci ñoom liñ naan ko wax feeñ mu ne buñ ko bettutoon maanaam téléphone ba lañ bëggoon a jël am luñ ca xool ak yooyu waaye dama ne doonte téléphone ba am na lu ca ne nañ ko defee du yoon nañ ko defee yoon kon waroon nañ ko mën a wóolu mu ñëw ñu déglu ko waaye loolu lépp ci gën a indiwaat suñu xel ñu am ci jaaxle mooy dafa am loo xamee ne Pape Alé kenn toppeewu ko li nga wax du dëgg te jàpp naa nag journaliste loolu lañ ko war a toppee lii nga wax wax nga ko te du dëgg waaye Pape Alé dafa wax loo xam ne dañu complot la boo xamee ne enquête bu nekk ci police ci ci ci gendarmerie moom la jot kayit ga kon lañ waroon a lijjanti mooy nu mu def ba jot ci kayit gi kon jàpp naa ne administration tey Pape Alé da leen a dimbale tey waroon nañoo def de sorte que seeni nit ñu móol leen tabax leen ba nga xam ne dara du seen comme ni ko Oustaz waxee te loola nag li koy indi mooy moom sa bopp ndax nag boo moomul sa bopp mënoo sa bopp am na lu bari loo xam ne dañ la ko defal defloo te ngor du ko maye. diina du ko maye daanaka lenn lu bari du ko maye. loolu nag moo indi sunu te ñun. ñu ci bari ñoo ngi wax mondial. waaye ñun ñi soppee Pape Alé. ñun ñi Pape Alé am lu mu def ci ñun. ñun ñi nga xamee ne tey métier mi ñor nañu. buñ ko def nag mbirum journaliste. ndax Pape Alé journaliste la mais Pape Alé bu caméraman bi liggéeyul. preneur de son bi liggéeyul. chauffeur bi koy yóbbu mu dem defi enquête wala defi jëli information liggéeyul liggéeyam du dox kon chaîne la moo tax nañuy gërëm bu baax taxawaay bi ci ñëpp am ndax keroog marché bi ñu def dañ ne woon ñun bariwuñu ne booloowuñu waaye keroog ku ne xam na ne Pape Alé xaw ma lu mu lebal Sénégal waaye war naa gën a góor góorlu ndax keroog gis nañ tey Pape indi indil ñu lu ñu jafe mooy mag ñu ne ci presse boo xam ne kenn gisatu leen muy Mamadou Omar Ndiaye Ibrahima Bokum euh, euh, euh, ñoo xamee ne tey nday Roqaya Mbodj ñoom Charles Faye ñëpp ba ci rajo Dunia bi tey keroog yaakaar naa ne damay laaj sax est-ce que yéen liggéey ngeen. télévision nationale nga xamee kenn daa ko gis ci yenn yi ñëpp génn presse bépp génn ñu ne lenn rek la xeex dañuy jàppale Pape Alé waaye jàppale suñ bopp ndax li dal Pape Alé mën naa dal ku ne. kon du may Pape Alé rek la daal dañoo war a seetaan Pape waaye daal fii may wax ak yow këru liggéeyukaay yi am nañ jafe-jafe. ña liggéey am nañ jafe-jafe. journalistes yi am nañ jafe-jafe caméraman am nañ jafe-jafe yooyu nag li ko indi te teg ñu ko am na ci loo xam ne état bu Sénégal la parce que da nga koy ñeme rek nga wax ko parce que kiñ tànn muy suñu njiitu réew dañ koo jiital ngir mu aar ñu dañ koo jiital ngir mu sàmm ñu dañ koo jiital ngir mu yërëm ñu dañ koo jiital ngir mu dooleel ñu moom dafa jël ci dooleem jël ay nit teg leen jox leen pouvoir ñooña nag ñoo amul de ci ñun ñoo ñu xoolewul bëtu ndey ñoo ñu xoolewul bëtu baay ñoo ñu xoolewul bëtu ñii ci réew mi lañ bokk ñoo ñu xoolewul bëtu ñii kat fii ma ne dafa am lu ma warloog ñoom waaye daal ñoom jàpp nañ ne jaay ñu doole toroxal ñu euh, boddi ñu loolu mooy seen waraf ci la ñuy xëy suba ak kon kat mhm. xamee ne tey ñoom coor ñoo ko jiite Ibrahima Lissa ngir ñu jàppale Pape Alé mhm. ñu koy wax fee mu nekk mhm. nekk fa ak ay nawleem mu ngi koy dund ak dignité di ko dund ak ngor benn wax na ko mais jàpp nañ ne tey Sénégal delloo nañu ko njukkal te xeex bi nag ñoo ngi jëm ci deuxième phase bi mooy fii ak bàyyiwuñu ko ci xeex la ñu ne ndax nag dañoo laal kenn ku bokk ci ñun te buñ ko laaloon ci dëgg wala ñu laal ko ci loo xamee ne tey dañ naan kat lii dañ ko koo def te dëgg la ñëpp dañ ci ànd ndax nag nit ñi dofuñu am nañ xel mais Pape Alé ku ne xam na ne lii muy def moom la doon def bi fii président yi nekkee ba ci Macky Sall mii tey ton ko Pape Alé bu dul dara sax am na fu mu jaar ak président Macky Sall président nag amul xarit amul mbokk waaye kóllëre lu mat a bàyyi xel la te lu mat sàmm la. Mhm. macha allah léegi mën na mën nañoo euh, tegandi Pape Alé. Mhm. donte du ci génn. mais ñu ñëw ci euh, Ismaïla Ismaïla Diop. ndax li wolof di wax ne tungu ne du teew ñuy nataal. Mhm. dañ doon gis Ismaïla Diop ci RTS. RTS nag mën nañ ko teg ci DTV di ko waxtaanee. ndax seen national. xëy na yóbbu DTV RTS di ko waxtaanee mën na jafe waaye jël euh, RTS indi ko DTV di ko waxtaanee mën na yomb ndax RTS sunu RTS la. Ah, public la bii privé la. bu ngoog c'est public. kon ñun dañoo bokk ci ñiy fay directeuru RTS man Makhtar Sarr dama cee bokk Ismaïla bokk ci Fallou bokk ci donte dañuy fayaale ñun Ismaïla ak mboolem personnel bii liggéey RTS. su ma ne personnel nag li mu wax léegi journaliste ba génn ca. kay defar son ba safoor mhm. mhm. bay dawal ba ca kay gàdde ca bunt ba kenn génn ci euh, ñu yàgg a gis ci jamono yu yàgg la ba tey nag du ci nguur gi rek mais nguurug Ablaye Wade euh, man nga ko arrière sax nga ne ba ci nguurug Abdou Diouf tout le temps dañ naan RTS yëfu état la donte nag tur wi mooy sénégalais yëpp ko moom national yow nga nekk kenn kuñ fa ràññee bu yàgg ba tey jamonoy lay wàdd ba tey ñu gis yaa ngi def émission yu am solo at yu mujj yi ñu gis nga am ay euh, karma ñangaan ak euh, njiital RTS te du yow kese mais ñu bari la ñu yëg ne am na syndicat yi taxawal sax yoo xam ne ñu ngay jooytu di ñaxtu ngir dañoo bëgg égalité am ca liggéey ba kër ga ñu jaarale ko ci yoon ba ku mel ne yow ak say morom euh, ngeen dem firigo firigo mooy kat munuñ leen a dàq ndax da ngeen a bokk ci kër gi waaye toog leen soxlawuñ leen pour ngeen def émission te yéen li ngeen di liggéey nekkul da di dawal oto wala ngeen di gàdd ca bunt ba mais lañ leen fa jëlee wax la def ay émission la lan moo xew RTS ba ku mel ne Ismaïla Diop gisatuñ ko muy def émission attaque le topp lu xew waaw li xew mooy euh, xëy na euh, bunt la bu may ubbi rek tëj ko ci lu gaaw déedéet mënu la gaaw <laughs> ndax euh, peut-être nit du mën a wax ci boppam wala xam nga RTS mm. ñun dañ fa nekk di fa liggéey am ay mag yoo xam ne ñoo ñu fa jiitu taxawal syndicat syndicat boobu mooy xeex àq ak yelleefu liggéeykat yi hmm. ñoom ñu dem ba war a génn ñun ñu jël lenge yi lenge yooyu ñu jël ko daan diisoo ak ki nga xamee ne moom la fa yàlla teg ndax syndicat jiituwul ci kii fa nekk ni tey Babacar Diagne syndicat nga fa woon Daouda Ndiaye syndicat nga fa woon waaye dañ daan diisoo ñaareel bi it mooy ñu amoon sens mooy kañ daan jël mu jiite kër gi da daan bokk ci ñun am na loo xam ne jàpp naa ne xëy na jombu ñu koo defoon wala jombu ñu koo tegoon xëy na moo tax it nii daawuñ ci àgg. Mm. ñaareel biir may leeral ne RTS jafe-jafe yàgg na fa waaye dañ ko daan waxtaanee waxtaan woowu nag moo amatul. Mm-hmm. maanaam daal tey fii may wax yow li nu fàtte li li nga xam ne nit ñi dañ ko doon dégg démb. nga xamee ne tey tooba saxal mbaamu sulli maanaam mbirum royaume jaay doole. maanaam mbirum esclavage. bu ma kenn wax ne li nga wax rëy na parce que li ñuy dund moo esclavage a yem. xëy na dañ ñoo jéngul takk ñu ci bërëb te loolu xëy na droit de si yeeg yooyu ñoo tax waaye li ñuy dund ci wàllu moral. di ko dund ci ci suñu liggéey di ko dund ci suñu nekkin foofa esclavage a ko tane. lu mel nan mooy li nga bokk ñu ñëw ne la bokkatoo ci wax nga ko mënuñ dàq te ki ñu ko teg bokk fa ndax ñun ki ñu tere. liñ bokk ki ñu ci génnee moom du agent RTS maanaam état ko fa teg muy président Macky Sall ñaareel bi mooy mu retraité muy Racine Talla mais retraité mën nañ ko bàyyi mu liggéey ndax nag expérience bu ku retraité am ak ak euh, li muy capitalisé war naa mën a jëriñ ay tout tànk war naa mën a jëriñ ndax ki jiitu ci birëb moo lay won nooy toogee waaye yàlla dafa def moom mu ñëw jiituñu retraité di toroxal ay agent yoo xamee dese na leen fukki at di yàq carrière ñoo xamee ne dese na leen fukki at ak juróom di détruire ay famille yoo xamee ne dese na leen tey ñaar fukki at yàq relation yoo xamee ne tey tuddee woon nañ ay doom ràq relation yoo xam ne tey dem nañ ba toll foo xam ne ñun ci biir RTS am na ñoo xam ne bu ñu amee dëj sanel too faa dem indil ñu ay problème yoo xamee ne kenn mënu koo wax donc loolu la ñuy dund te ki ñu ko teg kenn la ñaareel ba ca topp mooy am ay ñuy wax euh, euh, ay boroomi xam liggéey RTS ba am fu àgg ñu xëy neewuñ leen mënu leen a liggéey newu leen da ngeen a def faute waaye neexoo ma ñu écarter leen te loolu du man rek fii may waxe yow mën naa laa limal lu toll ci juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne kenn ku ne yaa nga tëdd sa kër di fayeeku weer wu dee wu ne liggéey woo jege woo RTS am na ñoo xam ne toog nañ fukki at ñëwuñu RTS te ñoo ngi fayeeku weer wu dee wu ne am na ñoo xam toog nañ juróom-ñaari at ñëwuñu RTS te ñoo ngi fayeeku weer wu ne hmm. am na ñoo xamee ne toog nañu fukk euh, euh, euh, at te ñoo ngi fayeeku weer wu ne man mii di wax yow bokk naa ci maa ngi fayeeku weer wu ne ci lim bu toll ci at ak juróom benn weer wala lu ko ëpp te liggéeyuma te maa ci gën a tuuti le xadi ay dara di sama sœur toog na ñetti at yoo xamee ne tey dañ koo tere liggéey RTS ak émission yu am solo yam fa doon def tey ñi nga xamee ne tey ay formateur lañ ci métier mi ñoo ngi seen kër tëdd te lenn mooy wax ji mooy neexoo wuñ ak Racine Talla tey RTS Racine Talla ay bokkam ay xaritam ay jegeñaaleem la indi teg ci agent yi nga xam ne tey def nañ vingt ans d' expérience dix ans d' expérience indi ba indi ay bonam def chef bàyyi fa ñu fa def ñaar fukki at ak nangam fañ nekk fa lañ nekk ba tey kon injustice la ñuy dund. lan mooy base problème bi. dafa am lu ngeen jooytu lu ngeen war a wax. <laughs> seen syndicat bi ñoo yëngal lu ñu war a yëngal. wala ngeen siiwal loo xam ne bëgguñu woon mu siiw. luy seen problème ñun li ñu xam buñ ko ñun li ñu xam. te noppi. Hmm. buñ ko waxoon musiba am. barki démb wa Njaay la kenn ku toog ci télé. ne moom Racine taala moo ko woolu ku ñuy wax Bamba woolu ko mu ñëw ñu ne ko dañoo bëgg ñeenti téléphone ndax Racine day dem France day yóbbul sëri ca doomam. ñu jënd ci xaalisu RTS ñeenti téléphone yoo xam ne 4 millions 200 la yóbbul ko sëri ca doomi Racine Talla hmm? bu jóge woon ci poche Racine Talla kenn amul muy wax ndax moom moom xaalisam hmm. waaye jàpp naa ne RTS tolluwul fu muy jëndalee ay doomi Racine Talla téléphone li tax ñu ne ñii na la na naa leen rey la laa ko mën a tuddee hmm. parce que ci la nekk ak ñun mooy oto yu RTS am oto yooyu toll ci lim bu takku cinq cent et quelques millions ñu xëy ne sukkandiku nañ ci décret boo xam ne ñoom amuñu ci droit ne oto yooyu jaay nañ ko directeur yi RTS fii may waxee ak yow amul oto fii may waxee ak yow démb jaay nañ ko directeur yéen directeur RTS yi prix bañ ko jaay nag nit rus na koo wax léegi damay laaj oto boo xamee ne dana jar daanaka vingt sept million ku ko jaayee ay deux millions trois millions lu mu tudd pono oto sax daanaka boo koy jënd ëpp na loolu kon patrimoine RTS boobu muy bazardé ñu taxaw ne du am mu ne ñu koy wax nañ dee ah base problème bi gën a fës. Mhm. mooy ay oto yu RTS moomoon Racine Talla jël ko jaay ko directeur yi. waaw boobu bokk na ci. ñaareel ba mooy eh, eh, oto yooyu fu mu jógee. oto yooyu état Sénégal moo ñu ko jëndaloon. fayuñu sax duwaan ndax oto yi daa cher ñu defal ñu exonération. pour ñan la woon. RTS la. RTS yooyu dina nañ ko ci turu RTS yóbbu ko ci ay tiru nit. ok kon pour RTS la woon. dañoo jël ay millions et millions jënd ay oto pour liggéeyu RTS. Mhm. oto yooyu dindi nañ ko ci tuuru RTS ndax oto yi carte grise bi RTS moo ciy ne. Mhm. saaga nañ tuur yooyu ci tuuru RTS yóbbu ko. Mhm. wax nañ ko oto yooyu am na ci ñett ba ñeent yoo xam ne Racine yor na ko. léegi loolu ngeen taxawoon. këram ne normal chauffeuru RTS moo fa ne di dawalal jabaram di ko yóbbul ay añ di ko yóbbul ay chauffeuru RTS moo fa nekk RTS di ko fay di ko jox essence su RTS yemuñu ca oto RTS nekk fa ay ati at. tey agent yi bu ñu bëggee dem Tamba tey amuñu oto bu baax bu ñu dugg dem Tamba loolu leen ne moo ngi yàq kër gi ñu ne bu ngeen ko fi waxee dee ñu ne agent yi nga xam ne tey ñoo ngi sonn di rey seen bopp comme mën ngaa jël ku bokk ci yow mu lay defal café di la mayal ndox di la doxul yónnent nga def ko chef de département jox ko oto jox ko avantage yëpp waa agent bi nga xam ne dafay liggéey sacrifier àddunaam nan fexeel lu yéwénal nekkinam ci kër gi nga ne bu ngeen ko waxee dee hmm. ñun looloo ñu teg lii ñuy dund. kon yéen syndicat yi doon jooytu yéen la ñu yóbbu frigo bu ma la déggee. maanaam képp koy yéen a loolu. waaw képp ku ah jërëjëf sëñ Matar. syndicat yooyu nga xam ne nag ñoo nekk biir RTS. Hmm. ñooñu ñëpp laa la wax ñëpp. Hmm. waxuma ci benn ñaar amu ci kenn koo xam ne tey yoroon nga pos te wàcce wuñ la. Ah waaw moo ngi mel ne gouvernement président Macky Sall. Hmm. président xëy wàccee ministre am yëpp. ñu ne ko lu tax nga wàccee leen ñu ne parce que ay syndicalistes lañ. maanaam fii may waxee syndicaliste bu yor poste amul RTS mu moonte ay nit nag ñi doon saaga di ñu xas buñ taxawee ne nit ñi kaay leen ñu waxtaan ak yéen ci njëriñu kër gi ñu ñëw dóor ñu ñooñu mu tànn ñëpp def leen i chef seen wërsëg la yàlla na leen jig yéene nañ leen ko ndax defu ko bant ku ne ci kër gi la ko def yéene nañ ko yéene nañ leen ko donc ñun loolu la ñuy dund ñaareel bi mooy pour wax dëgg mooy RTS nit ñi seetaanuñ ko audience RTS dafa wàññeeku te li tax mooy ñun ñëpp xam nañ ko ñaar nag moo ci ne mooy ne ci wax dëgg wala nga noppi man mii di wax ak yow. Hmm. chef laa woon waaye damaa préféré ñàkk chef gi maak ñi ma àndal ñëpp hmm. ndax am na ñoo xam ne ñoo ma gënoon a kawe mais dañoo préféré ñàkk ko ngir sauvegarder seen dignité hmm. ndax lépp ay jeex. continuité RTS bi da ngeen ko doon kaas. mais mais ci leen dëkk man mi di waxee agent programme la waaw ku fekk émission bu mel ne bu Xadi Aydara nga dindi ko ndax lan la Bouba invité nañ ko te moom. fekk émission bu mel ne dañ kumpa nga dindi ko ndax lan Isman syndicaliste la fekk émission bu mel ne xel du doy nga xamee ne tey yow sëñ Fata Sarr di sa mag jàll na ci lu ëpp ñaar fukki at di wax ci wàllu wér-gu-yaram kese lii kat ngeen di def ba du ngeen feebar maanaam ñi feebar ñëpp racine tala bokk te ñu leen feebar fi mu toll ni parce que li leen doon tax ñoom am nañ moyens yuñ fajoo ji ay Canada la ñuy dem ay États-Unis mais baykat bi nekk ci àll bi ak sama maam ji nga xamee ne ay yeewu ay bëtam laasam di kii kooku ñu tegal ko espace spécialiste mu wax ko nan lay def ba du feebar ndax amul lum mu fajoo mhm. mais kooku service public la loolu lépp arrêté na la fa ne daal mooy da neex laa sin taala toog fa toog fa boo nee boo nee moo rafet <laughs> laa la boo ko ah. saagalee nangam la mhm. donc ñun nag lu duñ yarewuñu saaga am na loo xam ne dee ñu ko gënal ñun nag ca loolu lañ ne loolu nag moo tax ñu ñuy teg lu ñuy teg te jàpp naa ne du RTS solo ya koy dund APS a koy dund moo tax kap taxaw ngir àq ak yelleefu travailleurs yi ñu bàyyi ci xel te jàpp naa ne loolu firnde la ci ñu taxaw leeral ko amul dara luñ sos macha allah buñ ko sosalee mhm. nañu yóbbu ci yoon tey sëñ Matar dafa am lu gën a garaaw mhm. dañoo xëy yóbbu ñu commissariat central yéen waaw syndicat yi waaw lu tax ah, très bien nee nañ dañ koo sosal ne daa jaay oto yi. loolu kañ la woon. yàgg na. waaw léegi mu def un an et quelque. Mhm. oto yi commissaire bi entendre ñu déglu ñu ne yéen da ngeen ko diffamé parce que nee na da ngeen ko sosal ay jaay ay oto. Mhm. oto yooyee ñu doon wax ne dañ koo jaay njaay ma gën naa leer mooy miite nañ ko jëlee ko ci turu RTS def ko ci turu nit loolu nu mu tudd du jaay. Mhm. kon ñun tey moo tax ñuy laaj nañ nañ auto saisiru RTS nañ ñëw def fa enquête xool la fa ne. te wallaay la azim ñoo ngi jëm ci loo xam ne mm-hmm. gis nga ñoo ngi wax poste la mm-hmm. dans niir lii ma wax nañ ko denc mm-hmm. lu raw poste danañu dal bu ñu deful ndànk ñaanuma ko yàlla nag ndax doxalin yii ñu doxal ba yàq poste ñoo ngi koy doxal RTS ci yàq ko lañ jëm ndax jëlatuñ nit parce que daa am xam-xam jëlatuñ nit parce que daa mën liggéey bi mais dañuy jël ay nit ñoo xamee ne teguñu ko ci dara dañ koo teg ci sama xarit yaa ma jàppale te RTS plus de huit cent et quelques waaw li toog liggéeyuñu doyul nga jël leen ne leen dem leen liggéey. te ay boroomi xam-xam day na waar day donc li ñuy dund. Mm. rus nañ ko sax nettali ndax gàcce la ci ñun. d' accord <laughs> euh, sëñ Fall bala ma ñëw yow pour confirmer ko rek lii muy wax nii sénégalais yëpp. Euh, mm-hmm. man ko téewaale. ci mm-hmm. li muy wax pour ne euh, pour ne lu lu sax la. Mm-hmm. toog naa fii DTV ne dossier Oustaz Alioune sàll RTS danaa ci dellusiwaat tey maa ngi ciy waxaat danaa ci dellusiwaat Oustaz Alioune Sall ci ñii muy wax nii la bokk. daan ngeen ko seetaan RTS gisatu leen ko fa lu xew Oustaz Alioune Sall ànd sàmm jikko yi ñoo woote daje place de l'obélisque Oustaz Alioune Sall ñëw ca daje ba en tant que oustaz ku libre moo ki moromi oustazam ak i imam journaliste syndicat étudiant euh, commerçant ñëpp daje ci benn place ne bëgguñu ngóor jigéen ak lu koy saxal ci réew mi ñu jox kilifa yi fa teewoon ku nekk kàddu moom mu bokk ca ña jëloon kàddu keroog ba tey waxatul RTS te avant daje ànd sàmm jikko yi mu ngi doon def émission RTS normal mais depuis mu taxaw ci place de l'obélisque Oustaz Alioune Sall yëkkati mikoro wax fa keroog lañ ko gëj a dékk caméra RTS mu wax ci waxuñ ko da nga wax RTS loo war wax waxuñ ko da nga fee def loo warta def waxuñ ko da nga ñëwatul heure bi nga waroon a ñëw amul lenn lu ñu teg ci loxoom ba tey ñi ngi ko yóbbu firigo ba fii ma toog ak yéen di wax nii loolu tamit bokk na ci cas yi muy wax te Racine mii moo ko liggéey Sénégalais yëpp nañ ko dégg Oustaz Alioune sàll ak am solo ak bëri xam-xam ak bëri ñu ko sopp ak bëri ñuy déglu waxtaanu Oustaz Alioune Sall di ko seetaan ci écran buñ ko amoon beneen tele bu dul RTS jël rawatina ñu xëy gis Oustaz Alioune Sall ci suñ télé national ñëpp kontaan ci ñëpp bég ci ndax fasaaxa ga macha allah xikma ba sagesse ba macha allah kooku ñu xëy ne ko defoo ci télé bi waxoo ci télé bi lu dul daal hmm. da nga dem ci benn daje ñu tudd ànd sàmm jikko yi dañuy xeex góor jigéen yi yow dootoo waxat RTS hmm. ba tey jii may wax ak yéen loolu mooy la nga xam ne moo xew loolu tamit ñu boole waale ko ci kaa yi bàyyeeguñu dossier boobu de danañ ci dellusiwaat te danañ ciy waxaat comme nii ñu koy waxee loolu moom du du Ismaïla ko wax mais maxtaar saara ko wax ndax dégg naa ko ci dégg dégg-dégg nit ñi di ko wax du wax nag ci lu ma leerul bi ma demee ba mbir yi bari laa yëkkati sama téléphone woo ko ko jege ko jege oustaz laaj ko mu ne ma noonu ñu koy waxee de la amee wax naa ceeg oustaz mu ne ma li yëg lii nii la amee ma ne ko baax na ndax lii war naa am ndax jaadu na ndax war naa nekk man daal bu ma doon liggéey RTS aw ma droit dem ci benn daje bu ñu woote yëkkati fa sama kàddu ndax daal loolu day tax du ma waxati RTS loolu ba kañ te muy sunu moomeel te nga libre ci dem ci daje boobu ni nga xamee ne say morom libre nañ ci dem fa dafa doy rek ànd sàmm ji koy wootee man maa déplacé wu man personnellement ak ñi ma àndal mat na ñetti yoon may yóbbu invitation RTS pour ñu ñëw couvrir daje ànd sàmm jikko koy duñ fa xand sax duñ ñu fulaal sax biñ ko jëkkee def defaat ko imam Babacar Sylla mi ngi seetaan bi ñu àndaatee ci oto bi dem dana ma oustaz est-ce que jar na ko ak ñi ñu àndaloon soxna Alima ma ne ko déedéet da jar na ko ni ñu demee ci télé yëpp invité leen lañuy demaatee ci ñoom it invité leen ba bu ëllëgee buñ ne waaw lu tax waa RTS ñëwul ñu ne pourtant invité nañu leen. lettre yi man laa wax man maa sol sama dàll ba RTS yóbbu fa ak ñi mosuñ cee ñëw waa xanaa loolu rek dafa doy taxawuñ ca daje ba ne RTS ñëwuñ waxuñ ci dara dañoo bàyyi noonu beneen yoon ñu invité leen waa léegi nag bu demee ba kenn ku nekk RTS yéen ñu leen invité ñëw leen moom en tant que kuy liggéeyee euh, si FM am liberté di liggéeye si FM mën na ñëw ci turu si FM ñëwul ci turu RTS nga ne ko non non non gannaaw la dem nga ci daje boobu noonu le dootoo fi waxati te duñ la wax nag lu tax waxuñ la daje ba la fa wax waxuñ la télé bi la nga fa wax waaye daal dem nga daje bi dootoo waxati RTS léegi ci problème yi nga xam ne nii ñoo nekk ca kër ga la bokk pour confirmer ko lii muy wax nii Cheikh Fall. waaw euh, mbir mi nag jur na jaaxle ak njàqare ndax kër gu mag goo xam ne dafa màndargawoo réew mi ci wàllu télé ak rajo dafa war a jaboote ñëpp te lii ngi tuddi équipe nationale di def ay milliards noonu la ñu war a bàyyee xel kër gu mag googu ndax mooy Sénégal. boo ko méngee rek la amoon démb bërki démb di nga xam ne kon nii Ismaïla waxee kër gi soppi na xarkanam bu baax a baax ndax bu ma nee équipe nationale mooy li ñuy tuddee ligne éditoriale. mooy la rajo yeeg télé yi naan mooy seen pas-pas ci wàllu joxe xibaar am ko naan la lii de sañ nga ko fee def waaye lee sañoo ko fee def loolu di ligne éditoriale bu dee kër gu mag gu mel nii nga xam ne mooy. télé ak rajo réew mi ñaar yi rek bu ci yemoon du lor kenn muy sàmmal ñu sunuy valeur muy sunu ngor ak sunu diine waaye nag bu ci parparloo amoon rek amee rek loree nga day am génn péete la muy Sénégal nga xam ne xeet yépp a ciy daje sàmm ak ay yelleef li privé bi mënut sax kii dañu ko dooleel ba lu